au début gëmoon naa affaire bi gëmoon naa lu bon bon bon sax mun nañ dem ba final mais bon tamit sport la quoi sport la xam nga tamit Cameroun dafa ñëw pour gagner Sénégal dafa ñëw pour gagner quoi football nañ dem nañ ba série penalty bon suñu wërsëg ko ci mais dara quoi dara nañ waar rek xam ni tamit bon gis neen avancement ci équipe bi quoi parce que booy xool kaan yi passé dañuy dem défaite dong nañuy indaale victoire sax dañ ko mën a am. mais booy moom gis naa ni gëm nañ affaire bi nañ defaruwaat bañ a découragé xam nga ñeneen kaan yaa ngi ak et puis qualification coupe du monde maa ngi fi ñu jéem a fàttali quoi te concentré wu si qualification coupe du monde bi ak yeneen kaan yi quoi. kontaan si ñoom rek parce que ñun moom franchement gars yi li leen doon laaj def nañ ko quoi mooy football teg bal bi football xam nga am jom quoi te loolu lépp wane nañ ko mais match moom xam nga rek gagné la victoire la défaite ak nul benn bi passé défaite la ñu yàlla jagleel nañ ko sant yàlla rek. ñu bàyyi booy xam nga ñu suureewu groupe bi gën a ñu bàyyi la ñu a qualifier coupe du monde bi quoi parce que loolu rek mën a fay instant bii nii. xam nga xam ne ñu critiquer Aliou Cissé le changement yi ñu def d' accord. non man man je pas d' accord sur ce Euh, Aliou Cissé moom rek moo mën a diriger équipe instant parce que ñun lañ moom la ñu wóolu teg ko ci kanamu équipe bi pour mu diriger équipe te moo gën a xam booy yi parce que moom moo monté ndoog booy kon bu tegee classement benn jaaykatu gerte caaf wala la parce que ko fa teg quoi franchement man ma Aliou moom tamit parce que tamit moom moom bu sañoon coupe bi fii lay ñëw quoi benn instant moo tax tamit. nañ bàyyi di critiquer entraîneur yi lii lii lii parce que moom tamit bu sañoon coupe bi fii lay ñëw quoi moom daa xalaat ni lii mu def nii peut-être bu ko defee ñooy gagné quoi moo tax mu def ko mais bu xalaatul woon bu xalaatoon lii mun naam tamit mooy loolu du ko def quoi. mais yaakaar bu garaaw si ñoom ñun ñu ngi leen doon séntu final quoi au moins final wala ñu jël coupe bi mais fii lañ ñëm quart de final am nañ sant yàlla am nga rek jàppale waat leen groupe bi gën a soudé wu ñu qualifié coupe du mais ku ci mel ni Sadio Mané sénégal yi mere nañ ko trop ah. waaw Sadio moom franchement mooy patron équipe bi quoi Sadio Mané moom vraiment dafa dafa def jom quoi série penalty na série penalty la mun nga ñëw mun nga dugal comme mun nga rater quoi franchement mais d'une part dama jàpp ne duñ ko ko sëf quoi. dañ ko parce que dóoragul sax euh, premier tir yi dafa commencé nga gis reporter yi ku nekk naan Sadio Mané logiquement moom mooy dóor cinquième tir bi xam nga peut-être que pression bu doon peser ci moom bon moo tax mu raté quoi franchement. moom amuñu luñ koy wax vraiment vraiment dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom amul luñ amuñu amuñu luñ koy reproché amuñu luñ koy wax amuñu luñ koy reproché football la tey ku dóorul doo raté penalty la série penalty ku dóorul doo kon comme ku dem ba jël engagement teg bal bi dóor xam nga ni dugal la bëggoon. xam nga ne dugal boobu lu ñu koy wax xanaa di ko encouragé rek non trop sax moom wax dëgg macha allah moom kon naa leen ci trop. mais ban avenir nga gis ci équipe bi par rapport ak yeneen éliminatoires yi nga xam. waaw jàpp naa ne équipe bi moom am na avenir bu baax moom franchement instant yi moom dañ defaruwaat rek te sénégalais yi tamit ñu wàññi wax ji quoi gars yi dañuy kar waaw guñ sax gars yi nekk fii di wax ku nekk di teg plateau fii Sénégal lii laa lële wax ji moo ñuy kar nañ ñu may ngir yàlla ñu defaraat équipe bi waaw équipe bi moo am na avenir moom franchement parce que booy ay booy lañ te gëm nañ ko bëgg nañ ko dañuy joxe ba mu jeex tàkk. niveau de jeu moom alhamdulilah quoi parce que teg nañ bal bi parce que Sénégal loolu rek lañ soxla football bu rafet te booy dañ doon football nice teg bal bi xam nga di changer jeu mooy loolu daal. am rek nan leen ñaanal affaire yi cata ci dugg quoi billaahi cat moo ci dugg mais booy moom franchement kontaan nañ si ñoom quoi nan leen ñaanal après ñu jéem a qualifier coupe